papa bi suñu rakk la ah ku jigéen ki tam suñu rakk la ndax ku jigéen ki magam suñu gaayan la mais booy bi tamit ku góor ki magam ñu ne moom ñoo fowandoo bëgg teg si kaw booy bi mel ni comme booy bi dafa def crime quoi te booy lu mu def dëgg dóor ñun ñu ngi koy naqaru waru ko dóor dëgg la mais tam comme gars yi nu ko aggravé yéegal ko ba si kaw mel ni comme si mel ni comme si booy bi dafa rey nit wala yaa quelque chose ñii di ko débat télé ñi naan booy bi dafa bon ak dugg na fi génn fii nit mënoo ko xam lu dul ay dëkkandoom ay dëkkandoo rek ñoo la mën a wax kii nii la mel wala kii melul nii mais mën a nekk ajak jak gis benn vidéo rek ne ku góor gi dafa bon wala dugg na fii wala na génn na fii ñi naan na yoon def liggéeyam ñi naan ay nañ ko tëj ñi naan procureur ku ne am lu mu siy wax dem ba yenn télé yi sax di si def ay débat booy bi joueur la ñu ne ñoom ñooy football ak ndoo suñu la ñun ñi ñu toog fii ñëpp ñun ñëpp kenn dàq ko si football gaa naan day yëkkati tuubay beeg yooyu loolu lu la habitude am la même buy football day crise koros boo gisoon ay vidéo football am day crise koros chaque instant day wàccee tuubé bi crise koros mun football mais affaire dafa metti ñëpp bi laa walaay xam nga rek booy bu ndaw nga bëgg a yàq avenir am te du yoon affaire bi mënoon nañ ko lijjanti xoolee ko neneen lijjanti ko mais pas ay police lii nii xale soo ko jëlee yóbbu ko kaso si lu mu xamul après su génnee day dëng rek mënoon nañ lijjanti problème ñoom ñaari dañuy génn a affaire bi si jour bi laa ko xam ñoom ñaar génn mais mënoon nañ lijjanti poroblème bi si neneen pas loolu mais ñu dëkk si koñ bi ñooñu si boppam ñoo indi fee bi nii yëpp ndax xamuñu affaire bi nu mu demee ñuy wër di commentaire ay booy bi da ko simmi ay lii ak lii booy bi xamul loolu xale bu ndaw la xale yi sooy def loolu seen bopp après dañ koy dund loo xamante ne xale xamoo xale bi yóbbu nañ ko hôpital dara jotu ko dara jotu ko xale bi yóbbu nañ ko hôpital dara jotu ko mais xam nga rek lenn lañ mën a wax ñenn ñu jàppale jeunes yi jeunes yi ñu jàppale leen bu baax ndax xale yi amuñu lu dul foo wala dara nu ñuy nekk ñu leen di dugg. mais nag xaw ma nag ñoom ñaar la lañ war a jotee mais booy seetloo bëgg sutura moo tax mu yéegal xale ba si kaw ah ñoom ñaar xaw ma duñ doon disputé noonu ba mu dóor ko ay pes moo di si yoon wax dëgg fa yàlla ko dóor moom donc su ma nee war na ko dóor moom seytaane la naa fekk la war ko dóor mais itam boo muy dóor xale bi tam jëlul intention dóor ko dóor boo xam te pour gaañ la boo seetloo te bu ko bu du ko jëlee intention pour dóor pour gaañ la xale boo xoolee mooy loolu mu ngi koy dóor mais yërmande bi mu ngi ci te boo xoolaatee da nga xam ne mu ngi koy baab tamit boo xoolaatee vidéo mu jeex mu ngi baabaat xale bi. ndax ñoom seen waa kër def nañ lu rafet ñun leen di tamit di maasawu bu baax seen waa kër yi di leen ñaan yàlla tamit di leen ñaan bu baax luñ mën a jàpp ñu bàyyi ko xam ne ay xale lañ. booy bu yaru booy bu baax kër goo dugg fii nii du la wax lu lu yaru tem wala baaxaayam du sëgg du tigi xool nit sax koo fek ni